les programme de Salam Vision une télévision au cœur du développement tey suñu chronique tey ñu ngi ko jëmale sur la crise casamançaise lan moo indi la crise casamançaise askanu suñu gaal euh, jamonoy Senghor 1982 ba léegi am na fanweeri at ak juróom-ñett euh, ba léegi suñu mbokk casamançais yi sagar ngi xeeñ seen biir lan mooy indi la crise casamançaise y a le MFDC à l'époque ki ko doon jiite mooy l'abbé Diamacoune Senghor jamono yooyu mi doon waxtaan ak le président Senghor ñoom mooy fipp yi bëggoon nañu jamono yi ñoom seen indépendance ah Senghor bañ mu indi ay jiixi jaaxa ay lënt-lënt ay rent yi bari yoo xam ne jamono yi ba tey il y de morts, il y a eu de blessés, combien de disparus, euh, des gens qui ont perdu la vie. ñàkk seen bakkan euh, si guerru Casamance boobu euh, Senghor def na si ay jéego ba si Abdou Diouf ubbi ay waxtaan ay négociation indiwaat jàmm euh, fële ci Casamance jamono Abdou Diouf amoon na ay négociation yu am solo gis nañ fa dañ fa ay nit euh, suñu mbokku Casamance yi mooy MFDC amoon na yeneen kuréel euh, dañ daan toog di waxtaan dañ dem ba ëllëg ku nekk demal sa bopp ma ne am nañu yaakaar que Casamance ñëpp ñoo ko bokk gaal gi bu suruxee ñëppay surux di woo les cadres casamançais le groupe de recherche pour la paix en Casamance di woo l'ancien ministre ancien maire de Robert Sagna am une expérience politique tous les cadres de ñu bàyyi euh, reyante bi ñu bàyyi euh, di xeex loolu dafay gën di jéggi dayoo ma ni Casamance ñu ñoo ko bokk ñooñu bu ñu woy fi yëpp toogee renforcer gën a rataxal seen diggante Casamance jàmm dina ñëwat loolu mooy Sénégal loolu mooy jàmm fan yi la passé rek euh, dugg nañu si àll bi suñu soldats yi loxo ay sambabo yu bare bare bare fekk si kaw euh, ñu yore ay ngànnaay di xoxatal askan bi di leen buntu xatal di jël seen alal di leen kidnappé guddeeg bëccëg ma ne crise Casamance boobu kañ lay jeex ñun Sénégalais yi di woo le président Sall euh, mu gën a woowaat les leaders Casamance ñu toog waxtaan ubbi ay négociations buñ ko defaree rek euh, Sénégal na nekk dëkku jàmm. la crise casamançaise nag du tey trente sept trente huit ans de guerre yaay trop de dégâts mbir mi metti na ma ni kan kañ lay guerre boobu di jeex euh, bu ñu nee Casamance dafa nekkoon le grenier du Sénégal tey boo demoon tey à Ziguinne en Casamance ba ci àll bi y a tout euh, forêt bu doy waar bu rafet lépp a ngi fa euh, suuf si naat àll bi nat mais ma leen woo suñu mbokku Casamance yi. ñu teg ngànnaay ñu toog waxtaan bokk ndey bokk euh, jibo génne Casamance si ay euh, situation yu désastreuse di les forces vive la Casamance di woo seen kuréel yoo xam ne seen gis-gis bokkul di si suñu sër nekk Casamance di woo euh, les acteurs la paix di les acteurs au développement di le gouvernement les ONG les partenaires ñëpp dugal seen loxo Casamance mën a noyyiwaat mais li ñu gis nii bu ñu deful ndànk guerre bi dafay gën a dafay gën a ñëwaat sur le front kenn ñaan ko yàlla. woo le président Sall qui est un homme d'expérience le président rek monsieur Macky Sall de nous envoyer sur le terrain des boucs émissaires togos ñu mbokku Casamance yi ñu ubbi d'âpres négociations pour ñu permettre Casamance yi delluwaat si jàmm di woo euh, le gouverneur la région de Ziguinchor. tu vois les les les étudiants les élèves les ressortissants casamançais partout au Sénégal ñu delluwaat seen xel euh, delluwaat mbuum sa boy boy ga bu ñu ko defee rek Casamance dina am jàmm mais ñu ñëpp on se dugal suñu loxo euh, que Casamance ñu ñoo ko bokk bu ñu seetaanee mbir mi dina doy waar ça suffit doy na sëkk cette guerre fratricide atroce et sanglante qui a coûté des et des blessés et des disparus en Casamance di woo nos frères gambiens nos frères de la Guinée-Bissau euh, ñoo bokk ndey ñoo bokk sous-région bi bu ñu mënee xelal suñu mbokku Casamance yi yaakaar na loolu mooy baax euh, amoon ay négociations à Banjul des négociations à Dakar un peu partout même jusqu'à la diaspora di woo tous ces ténors la crise casamançaise ñu nekk France nekk Allemagne nekk Belgique de dire à ses frères casamançais d'arrêter cette guerre fratricide et atroce loolu dafa ñaaw en Casamance ñoo bokk Casamance man de je en tant que journaliste euh, d'aller faire des recherches approfondies dans la forêt et dans les forêts casamançaises ma ne askanu Casamance ñoo bokk réew mi ñun ñoo war di jiboo euh, taire les armes comme le disait un proverbe les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix tey mooy suñu chronique tey euh, sur la crise casamançaise Amnesty Yaakaar di wax encore plus de faire Robert Sagna les ténors ñu nekk Bruxelles un peu partout nañu delluwaat di réfléchir à travers des débats des tables rondes des séminaires des conférences ñu mën a euh, bàyyi teg ngànna yi loolu moo secoué moom moo terroriser ce qu'on appelle nos frères casamançais tey moo doon la chronique sur la crise casamassaise mbokk yi dina am benn suivi dans d'autres semaines nous y avec des invités leen gërëm leen sant jaa